téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. turu frappe France dégage. sama gars yi balaa suñu kay léegi di wax dama leen di joxaat beneen nouvelle bu neex loxo yi ci kaw ñu ne Diourbel bàyyi nañ galas gaay bravo merci pour la mobilisation bàyyi nañ Gallas Guèye à Diourbel naa leen mbokk yi nuyu naa leen mbokk yi nuyu naa leen mbokk yi nuyu naa leen tàccu leen seen bopp lan ngeen wax seule la lutte seule lutte seule lutte da ñëw taxaw fii pour laaj juróom-ñetti nit yoo xam ne ñeent yi dañ leen tëj Ziguinchor ñeent yi ñu tëj leen Diourbel ñu ñëw fii daje fi trois heures balaay timis ñu libéré ñett ci Diourbel mu des juróom gars yi tàccu leen seen bopp mbokk yi yéenay suñu leader yéenay suñu héros yéen yéen askan wi yéenay suñu leader yéenay suñu héros tàccuwaat leen seen bopp. wane ngeen tey ne du ngeen mobilisation Ndiaga Ndiaye du ngeen mobilisation import export du ngeen mobilisation bu ñu loué vous êtes une mobilisation digne vous êtes des Sénégalais dignes kenn du leen jënd njëgu ginaar mbokk yi. ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi Ndeye Fatou Diop wax na ko sànq dañoo am ay tur tey ñooñu ñoo tax ñu ñëw yàcc di nga dégg kat kat mbokk yi fii li ñu fi dajale mooy mbiru liberté mbiru droit de l'homme ci liberté am na liberté politique ñoom Ndongo Diop ak ñeent ñuy jàpp ci Ziguinchor ci cadre liberté politique la nekk ci contrôle judiciaire foog ñu wax ñu contrôle judiciaire boobu kan lay jeex Abbas Fall mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu liberté provisoire boobu kan lay jeex Birame Souleye Diop mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu liberté provisoire boobu kañ lay jeex Kilifeu mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex Assane Diouf mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex Clédor Sène mu ngi nekk ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex Pape Malick Seck mu ngi ci liberté provisoire foog ñu wax ñu kañ lay jeex ak ñeneen ñi nga xam ne maa ngi maa ngi leen di baalu ak ñeneen ñi nga maa ngi leen di baalu ak fàtte seen tur foog ñu xam kañ la liberté provisoire boobu di jeex waaye itam Barthélémy Diaz mii toog fi depuis 2011 dix ans fukki at ñu koy topp ci benn dossier Assane Diouf foog ñu wax ñu kañ lay jeex mbokk yi loolu yëpp la ñu war a boole wax président Macky Sall dafa war a jeex waratuñu toog seetaan ñuy noot Barthélémy Diaz saay bu waxee ñu convoqué ko tribunal waratuñu seetaan ñuy noot Assane Diouf saay bu waxee loo xam ne arrangé wul Macky Sall ñu yóbbu ko tribunal. waruñu toog seetaan Guy Marius Sagna mu am ñetti liberté provisoire yu dul jeex. mbokk yi élection locale yaa ngi ñëw waaye élection locale yii du bokk ak beneen élection locale bu mës am Sénégal. élection locale yi référendum la locale yii c'est un référendum pour savoir ndax le peuple sénégalais est d'accord pour une troisième candidature de Macky Sall ou pas et donc dañoo war a mobiliser wu pour élection locale yii ndaxte élection locale yii Macky Sall dafa bëgg am ay résultats yoo xam ne ci la nar a sukkandiku pour wax voilà le peuple sénégalais wax na ko ne mun na nekk candidat une troisième fois te loolu waruñu ko nangu tey waruñu élection locale yii dañoo war a xam ne naam am na enjeu local waaye weesu na enjeu local. Ah, maa kii dee naa suul fi may daanelee mooy fi may daanelee mooy dañuy wax droit de l'homme droit de l'homme droit de l'homme say bu ñu waxee droit de l'homme li ñuy fàttaliku mooy les droits politiques droit de manifester droit de voter ak ñoom seen.